yéen ci xam nga aussi da ngeen wax action développement mm-hmm. époque bii ñu toll on pare de parrainage euh, achat de conscience yi am na mm-hmm. gis nañ ko déjà gis nga ay 3000 ñu ngi jël ñu ngi 3000 di jël seen carte d'identité est-ce que aussi di ngeen sauter sur l'occasion pour mën a au moins yee les jeunes li valeur carte d'identité am mu nekk arme bu redoutable ba kenn war ko bazarder noonu noonu waaw mm-hmm. parce que c'est ce voile en fait. Mmh. c'est ta voix ta dañ siy conscientiser bien sûr ñu ngi conscientiser les jeunes ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom pour wax ne la que carrément par exemple man je peux pas venir pour dire que ni voilà 3000 francs après voilà quoi après yow tu prends que les euh, nekk nekk président wala mu nekk lu mu mënti doon moo xam après il t'oublie après yow retourner waat encore dans la dans la misère. dans la pourquoi. loolu dafa war a jëm en fait en fait loolu ñun ñu ngi siy dox bu ñu ngi siy bay suñu waa bu bu mat sax depuis euh, je pense bien depuis mois de décembre bi. Hmm. loolu ñu ngi ci sama commune fii Wakaam ñu ngi ci waxtaan maa ngi ci waxtaan ak jeunes ñu ngi ci waxtaan ak jeunes bu baax a baax. Hmm. wax na sa carte yow yaa ko moom yow yaa xool ku la doy nga xool koo xamante ni kii leer na na que ni voilà amal mën na la amal njariñ amal njariñ sa askan mën nga ko sànni sa carte. parce que boo demee si mbañkat yow ak yàlla yaa nekk. parce que ñenn ñi lan lañ lay wax carrément bon man damay encaisser sa xaalis bi après bu ma demee fële ma ak yàlla la mais loolu